loolu wees tamit nee na mi ngi nuyu aussi euh, waa gouvernement bi nga xam ne ñooy affaire àdduna bi maanaam jiite réew mi leen ziara faax leen nuyu leen gërëm ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne masuñu ñëpp di ko taxawee di ko ittewoo lépp loo xam ne rek làmb na diine ji ak tariqa yi nekk ci réew mi ak mbokk bi te loolu fi nekk amuñu lu ëpp suñu diine ay diine fi nekk ay tariqa fi nekk mbokk bi ñëw waa fi def làmb ko lépp nag Euh, ñu ànd rek faxuutale yoon suñu borom subhaanahu wa taala ku ne ak yoon ba nga jaare yal na yàlla nangu lépp yóbbu ñu incha allahu taala ci xadara ilahi incha allahu tamit ñu ngi nuyu suñu mbokk waa presse leen gërëm bu baax a baax a baax leen seet leen sant ci coono yi taxawaay yi waaw mën nañ cee tudd RTS maanaam ñu ngi fi ak yu waaye suñu ne presse rek képp koo xam ci domaine boo xam ne tudd la waaye nag ñu tudd ci aussi bi nga ne ñooy wax la mu di asfiya asfiya yi nga xam ne suñu doom suñu jarbaat suñu moo ko jiite di def liggéey bu mucc ayib fa tabarakallah ci xadara yi ak xadaraat yëpp ndax comme ni ma ko waxee woon jamono yi passé ci journée Cheikh Tidiane taala anhu bi ma sante presque foofu pare ci tur Seydi al Khalifa wax naa leen ne euh, fu mel ni ñu ngi def li bu mucc ay bu am ndax ñoo amuñu benn frontière fu nekk rek fu woote rek soxla dem nañu muy jëla moo xam kon su ko defee kon mu sori wala mu jege loolu nag it tey koy waral ak bëgg-bëgg ak cofe ak dëggu kon donc yàlla yàlla fay leen yéen ñëpp euh, ngeen ñu taala sëriñ bi daal nee li tax mu yebal ma moo di rek comme ni ko waxee sànq lii daf ko lool heureusement nag que ay doom ay sëriñam ñu ngi ci taxawaay bu mucc ayib bu am solo su ko defee kon ñu ngi leen ci gën a ñaax bu baax a baax rek di leen gërëm fu mu fu mu toll leen Cheikh Abdou Hamid Dia Cheikh Ahmadou Moustapha euh, ñu ngi nuyu seen Mouhamadou Moustapha wax di ko gërëm di ko sant ak seen Mouhamadou Habib ak waa xarala bi yëpp di wax ne ñu ngi am daan comme ni ñu koy waxee waaye fa tabarakallah dara taxawul fa tabarakallah lépp ngi dox ci mbaaxu yàlla ak yonent bi ak ni ko Baye Abdoulaye waxee woon léegi ak seen itte ndax itte daf ci am solo lool. waaw da ngeen déglu cër amul leen jotaay amul leen dara fu ngeen toll rek yéen a ngi ci biir xadra bi lépp loo xam ne war ngeen koo taxawee wala war ngeen koo gën a ñoŋal wala war ngeen koo gën a rafetal rek du xaar sax mu ko jóg ngeen def la ngeen ca war a def su ko defee pare ñëw tamit rendre ko compte te loolu rek la njaboot wala la kilifa am ci njabootam kon boobu mi ngi leen di gërëm ngeen di gërëm neen nag seen programme xam ne tëral ngeen koo lu ngeen ko xalaate rek ci mbaaxu yàlla ndax xam nañ lu ngeen yëg dara loo xam ne yéen koy def te ñëw leen ba ci moom waxtaan ceeg moom yëgal ko ko sàkku ci ñaan te loolu yëpp nag dafa loo xam ne rek luy jagal xadara bi la ak xadaraati ak yooyu kon donc euh, li ngeen yëkkati rek yàlla na ci yàlla dugal gën a noonu yàlla dugal ci jàppna la lépp ngeen am réussite incha allahu taala waaye daal ñu ngi ànd ak yéen ci programme yëpp ñu ci ànd ñu ngi leen di gërëm baax a baax nee na tamit ñu ngi nuyu suñu mbokku transporteurs yi teew dara bu baax beneen gàmmu wala beneen cérémonie religieuse bu mën a am rek il faut que ñu wax affaire transport transporteur yi ñu ngi leen di dara bu baax a baax a baax mas ñoo réere seen taxawaay ak seen itte ak seen ñewanti ci usager yi nga xam ne dañuy dëgmal wala dañuy jural ca fa nga xam ne fa la ñuy defee cérémonie boobu wala boobu fa la ñuy yëngale nga xam ne mbir la moo xam ne réew mi ko moo di gàmm moo di màggal moo di leneen te loolu yooyu yëpp dana bari su ko defee kon nag mi ngi leen di def bu baax leen ñaan rek ñu gën a comme ni ñu ko daan defee su waxtu yu mel ni jógee gën a am ñeewal bi ci usager yi ci France pass yeeg ak tamit jamono neexul su ko defee lu ñu mën ci jàppandalal mbokk yi fii wut si rek ñu jàpp wala sax dem feneen di fa gàmmu ji ndax gàmmu gi fu nekk la ñuy gàmmoo waaye su ñu am njaboot ci moom euh, yombalal ko la muy joxe maanaam mu di faas ba mu dem ci jàmm waaye nag nee na yëngoo rek ci yombalal bi bu ñu yombalee ba pare ba yegg foofa tamit dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci doole bi ñuy doole dogu ndànk def ndànk àgg ci jàmm ndax li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di wax al ajalatu min alcheytan wa taalmi min arrahman waaw nee na gaaw a parax parax seytaane koy waral naan la gaawal gaawal doole rek wala gaawal naan ba yàlla tere mun nag waaye ak taal bi naka dëndee bu ndànk dal ci borom bi subhanahu wa taala su ko defee kon bu ay nit nañ dow ndànk dem ndànk ak ci jàmm am fa yiw am gërëmal borom bi am seen gërëmal mbokk am ndax ku am sa gërëmal mbokk wala ki nga xam ne dafa soxla nga dimbale ko ci soxla soo ko ci dimbalee xamal ne am na ku gërëm la rek yàlla gërëm la am na gërëmal borom bi subhaanahu wa taala man faraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya ko defee kurbatan moo di rek jàqare wala jaaxle xam ne ci waawoon dafa bëgg bi xaw koo jafe soo ko jàppale ne ko nangam nga am ba mu ko kaay ñu jàppale la wàññi ko jox la ko xamal amul sikki sattane soo ne jërëjëf rek xamal yàlla mel na jërëjëf su ko defee kon loolu tamit di ko transporté rek nee na nag li muy wax rek waa dëkk bi ñu leen fàttali euh, jamono dëkk la soppiku euh, loo xam ne tey jafe-jafe yi bari nañu waaye tamit euh, am na mu yëg loo xam ne mi ngi fi daf koy maanaam dafay ñaan ñi nga xam ne ñoo koy def ñu am ci tamit jàpp ndal moo di dëkkuwaay tout d'abord comme soo mag yi daan waxee ba léegi moom lay wax moo itam mooy rek ñu dimbale ci gan yi bu ñu ñëwee ñu bàyyi nekkee lépp dalal suñu gan ñu yaatal leen ndax gan ñu ganu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ngay demee Màkka su aj jotee wala su romba ñu ne mulufu rahman ganu borom bi subhanahu wa taala fii tamit ñu mulufu rasul sallallahu alayhi wa sallam waaw fii tamit ganu yonante bi ñoo fi ñëw ndax Cheikh Sidi Hadj Malick comme ko wax ala abdi moom lay la def yàlla moom naxwal xaram naxwal xaram kon ko yàlla ak yonante bi moo tax mu woote ba nga xam ne kon bu ñëwee nañ leen jàppandal bu baax a baax teg leen ci kaw yëkkati leen euh, gàmmu yàqu su ko defee fu si nekk ñëw ko dalal ko teral ko loo man bu demee tamit incha allahu taala yokkute rek ak ngërëmal borom bi def ci naam nee na tamit euh, ñi nga xam ne aussi dañu luwe ay kër yooyu dëkk wala appartement di ko luwe aussi mbokk yi nga xam ne dañuy wax si am na si ñoo xam ne xaw a métti si ñoom ñu def ci rek jàppandal terewuñu kenn ku wér dara tax ku nekk yaa xam sa situation économique wala financière fa mu toll ak say besoins waaye rek tamit nag woyofal tuuti tamit baax na ci waaw su ko defee kon nañu gën a baax a baax ba mbokk moo xam ne nag nga ànd ak sa njaboot ak say xarit ak si ñëpp fatalaatu ak say àndandoo ak say mbokk taalibe ak say soppe war a luye benn kër am loo joxe ñu jàpp na ba nga xam ne incha allahu taala di nga mën a am fu fu fu baax loo xam ne di nga ñetti fan ñeent wala sax juróomi fan yaa xam ba ngay dem selon tamit daal loolu tamit li nga xam ne aussi ñi ngi ñëw ñu loué leen wala jox ay këru jàmm tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tamit ndax di nga gis koo xam dafa naan du ma loué wala kii ndax dafa am ci xew naan naan loolu yëpp ñu bàyyi ci xel rek. su ko defee daal nee na li muy wax daal moo di rek euh, dimbalante mm-hmm. jàppalante mm-hmm. ànd si jàmm ànd si cofeel ndax loolu yëpp mooy axlaaq mm-hmm. wala xayaat bi nga xam ne moom Seydina tasawuf bi nga xam ne moom Seydina Muhammad daal jëfe di kii woote suñu mag yu baax yi depuis saxaaba yi taabi'iin ba ak Cheikh Seydi Hadj Malick bi nga xam ne mooy suñu wasila ak na mu daan defee di woote ci jàmm ci yiw ci dal ci def ñu àndandoo ci loolu mën a ci jàmm incha taala mi ngi ñaan tamit yàlla ñu ko yàq fekk ak yu bare bare bare bare ci kooku nag wér nee na ñu ziyaar bu baax xam naa duñ leen utal ndax tamit àll optimisation bi wax tubaab leen su ko defee daal loolu sëriñ waxoon na leen ko ci ay ziyaar ak la ñu def waaw su ko defee si xarit si waaw loolu daal ñun sax gaaw a bàyyi alamin. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu sunu woytu sunu bàyyi sunu nijaay Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Abdoul Aziz mi nga xam ni tey ci jataay bii moo fi xalifa bi di Serigne Babacar Sy Mansour moo fi Cheikh Hadj Malick Maodo moo fi Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñu ziyaar ko ndokkeel ko ndokkeel ko ci kàddu jotal yu rafet yi nga xam ne jotalal na ko magam xaritam soppe di xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ak ay rakam jërëjëf si dégg nañu kàddu yi taataan nañu ko ziyaara sunu maire de la ville Alxaaji Demba Diop Sy ak mboolem kàngam yi ak ñi fi teew ni nga ko limee ñun ñun ñëpp di fi teew di say doom di say jarbaat ma ànd ak suma rakk yii di sëriñ Moustapha Sy Al nga xam ni ñun ñaar la xalifa bi dénk liggéeyu gàmm gii ak li xew ci kër gi ñu di ko àndante yéen mu boole ñoo ak sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñuy dem di diisoog moom bu fekkee solo ngeen bu ñu paree rendre ko compte ñu yàlla di ko doxal ba fii ñu toll tey bés tey bii ñu ànd ko suñu rak mu euh, Abdul Hamid al Amin bi nga xam ni tabaarakallaahu moom la yàlla teg mu yor lii di wàllu communication sëriñ bi li nga wax yépp mat kenn du ci yokk dara lu dul rek dañuy préciser ci benn programme bu am mooy xalifa bi dafa war a def lu ñuy tuddee maanaam jamaatu nuur as sunni bi nga xam ni ñoom la dénkoon liggéeyu jumaa ji yàlla dogaloon sëriñ bi keroog ca zawiya ba le 14 septembre mu daal di yónnee wax ni nañu commencé mbirum jumaa ji le 14 septembre 2000 Euh, vingt ca Grand Théâtre fa lañ ko lancé woon yàlla di ñu suturaal ci bar ci mbaaxam ba tey jii le 14 septembre agsi waa jamaatu Nour As-Sini ci njiitalal sunu président sunu soppe Mouhamadul Makhtar Cissé mu wax ni li ko sëriñ bi santoon ci jumaa ji daanaka lu ci ëpp bare na dafa bëgg bu le 14 jotee bés bu mu ko lancé woon mu tombeeg anniversaire bi Cheikh Hadj Abdou Lahad radiyallahu anhu mu jébbal ko caabi ji jébbal caabi nag du ouverture jumaa dañuy dégg ni dañuy jébbale caabi bi jumaa la ñoom dañ leen santoon liggéey liggéey bi pare na dañuy yëkkati caabi ji teg ko ci loxo ki leen ko santoon moom ak ay rakkam sëriñ bi nangu caabi yi moom ak ay rakkam loolu liggéeyu privé la famille la ci biir ñépp nag ci famille bi lañ bokk waaye dañ cee seet rek xalifa bi ak ay rakkam waa jamaatu mun ak suñuy ñëw jox leen caabi yi bu leen ko joxee nag ba xalifa bi téye ko moom ak ay rakkam ñoom ñooy xool ban bés moo gën a rafet ban bés moo gën a baax pour ñu def couverture officielle bi invité ci jullit yépp éviter ci réew mi yëpp ci sous région bi loolu ci xalaatu xalifa bi ak ay rakam la kuy ñëw daal na jàpp ni loolu du ouverture jumaa loolu la xalifa bi waxoon ni nañu ci insister bi ci topp sëriñ bi mi ngi ko doon wax mooy ñi nga xam ni dañuy ñëw borom oto yi diggante Dakar ak Tivaouane ak feneen ak Tivaouane sore dafa bëgg rek leeral ni jëkkante bi yokk paas yi nangam nangam waxoon naa leen fii daaw ni maamam Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu moo waxoon ni taalibe bu bëgg ñëw ci Malick te amul pexe ñëw ci Malick que fexe ba mu ñëw ci Malick dana am dara te daray Seydil Hadj Malick jooju nag dara la kon yéen ñi nga xam yéenay transporté nit ñi Serigne Abdou Al Amin daf daan wax ni yabu leen ay xar yabu leen ay mala ay nit ngeen bi yab bàyyi leen xel ñi ngeen di yab ak fi ñu jëm si. te yéen ñi nga xam ne yéenay dugg ci oto yi itam di client yi da bàyyi xel seen bopp xam ni yàlla laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim waaye boo doyalee rek summa radadnaahu asfala saafiliin yéen ñi dëkk Tiwaawan sëriñ bi wax na ko nee na ubbi leen kër yi yaatal leen daral leen gan yi bu ngeen demee bay laaj xaalis na nekk lu yomb ci ñi koy jël waaye jafeel ko ba mu metti ak yéen commerçant yi nga xam ne yéen a yi ubbi seen i boutique di jaay bu leen yokk prix yi sëriñ bi daal li mu doon wax mooy li nga xam ne moom la ko magam xalifa bi sant di sant nag kilifa yépp dale ko ci président de la république ak premier ministre ak ministre de l'intérieur ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo leen di jàppale di coordonné ci gouvernement bi bàyyiwul benn ministère képp koo xam ni concerné la gàmmu Tivaouane kenn ku ci nekk la la président sant yaa nga ca yàlla na yàlla jàppale la ñu ngi ñaan ñëpp ñëw ci jàmm fekk xalifa bi ci jàmm fekk fi ay rakkam ci jàmm ñu dugg si ci gàmm bi ci bismillahi rahmaani rahim jëlaale caabi jumaa ji ba fekkee bés buñ koy ubbee yàlla na yàlla barkeel ku fi ñëw li sëriñ bi wax rek la ñuy tëjee Sidi Hadj Malick nee na wa mawliduhu bihi sharafun xiiru fa fi bi in jaaxu suduri màggal juddu yonent bi fa in jaaxu suduri fi tax bi aajo àdduna ak àllaaxira bien ci bien fële mooy ci màggal juddu yonent ku bëgg bien ci bien fële laa ko nag xaw nag ku bëgg bien fi bañ a bien fee wala ku bëgg a bien fee bañ a bien fii waaye ci diine wu duniyaa bi laa taf si gàmmu gàmmu ñëw leen ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin xam fi ngeen jëm si xam guddi gi ngeen jëm si xam li ngeen wut si yàlla yàlla barke lépp yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ñu ngi ziar kilifa diine yi fi nekk yëpp di ziar sëriñ bi di ko sant ci taxawaay bi nga xam ni magam xaritam sant na ko ko mu ñëw matal ko yàlla yàlla barkeel bi ñaan xalifa bi yàlla yàlla guddal fanam yokku wéral defal ko ay rakam Seydil Hadji Malick moom sëñ Babacar ñoom ñii ba ci sëriñ Mansour si dabaax yusiitum xayran wa kufiitum charran ويعطيكم مالا وينصركم نصرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صلى الله وسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد القائل بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المخدوم سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين mbokk yi Sénégal jullitu yàlla yi mbokki taalibe yi waajur wi fi teew teewal sunu baay Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wàccee sa wàccuwaay ci nun di itam sa teewaay ci nun di amit bépp yëg-yëg ci kàddu yi nga rotal rotal ko ci yéene xalifa bi rotal ko ci yéene rakkam yi koy jàppali ci yenn bii ko mag ñi yenn muy kàddu yu leer jëm ci bëgg-bëgg ci wàccaay yi nu jëm ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na rek lu mënul ñàkk gannaaw bi ñu nuyoo Sëriñ Habib bii doon jotal yóbbante yi mu jotal ñun waa comité d'organisation au service du Khalif Koskas ñun la cellule zawiya tijaniyya bi nga xamante ni moom la dénk lépp lu jëm ci wàllu communication ci taxawaay yi nu jëm wax la ni rek boobaak léegi àndandoo nañu ci tegtala ak yéenéem mu yabal nu man ak sëriñ Habib bi ak sëriñ Moustapha ak comité culturel bi nga xamante ni ñooy gëstu ak a saytu muy le comité scientifique jëm ci xew-xew bii nga ni moo sàkku woon balaa ñëw ñu taamu ko thème mu tànn thème joxe ko mu nekk baat bi yonent bi àbbul boppam wax ni bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq dañu ma yónni ngir ma mottali jikko càng yi yonentam moom sallallahu alayhi wa sallam sunu maam Seydi El Hadj Malick moo nu ko tegtal yónneen tamit moom la yàlla wax ni moo ñëw nekk yërmande ci jullit waaye yërmande ci humanité bi yëpp yónneen tamit moom la joxeñ loxoom pour mu nekk tegtal bi gën a méngoo pour doomu aadama mën ci natt boppam ci melokaan yi natt boppam ci doxalin yi natt boppam ci lépp loo xamante ni dafa làmb dundu doomu aadama yonent bi est le meilleur exemple en tout moom la taamu pour ñu jël ko woowaat mbokki taalibe yi woowaat mbokki jullit yi woowaat mbokku Sénégal mbokku Afrique ak waa adduna bi ci boppam ci ñu delluwaat tukki ci dundam tukki ci meloom yu rafet tukki ci li nga xamante ni moo nuy may nu mën doxal dund waaye dund gu teey dund gu amul benn ayib bi ñu demee seeti Pape Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz jox na nu ci nu jël wéyal tànneefu xalifa bi delluwaat ñaan comité bi ñu daje pour xool gëstu ñi ci war pour mën ko tegtal nit ñi jëm ci wàccaayu gàmmu gi jëm ci burda almadiya bi nga xamante ni moom la moom la taamu woon bu jotee bu weer wi feeñee ñu doore ko muy melal melokaan bi yonent bi ci li gën a yaatu ci melo te rafet ci li gën a nag tey ñu ngi jëm ci point de presse yi nga xamante ni sunu mbokki xibaarkat yi ñoo ñëw moom xalifa bi ci boppam may nu lu toll ni yabalal nu la pour nga ñëw jëmmal nu pour nga ñëw magal na nga ñëw wane ni yoonu ndaw bu ne mag baax na ci muy sa teewaay bu rafet bii yàgg mbokk yu dem yi Omar sëriñ Hassan sëriñ Moulay Diop rawatina le maire de Tivaouane El Hadji Demba Diop Sy ñu ñëw pour rek wan mbokki taalibe yi ni xalifa bi li mu bëgg insha allah fii ci dëkk bi loolu lay li mu bëgg it ci réew bi loolu lay li mu bëgg ci doxalin wi na mu ko bëgg insha allah loolu lay am ndax kuy ubbi nga sa nopp moom rek ngay jël li mu joxe kon loolu la ñuy ñu doore ko nag ci wàccaay yooyu dellu wan ne ni taalibe bokk na ci li koy sagal mooy fu mu déggee baatu kilifa rek mu doxal la kilifa nga bëgg na it ci liy tax kilifa ak ñoŋam mu wóor ko ni njabootam lu mu bëgg loola dana ko def ca na mu ko bëggee ak cent pour cent bokk na ci liy tax wégeelu kilifa mooy njaboot mel na mu war a mel na mu mel ci diggu na mu war a mel ci taxawaay na mu war a mel ci itte kaween sa itte ba sa kilifa ca biir itte booba boo koy doxal mu xam ni kii kat jar na àndanool euh, mën koo désigner mu nekk sa compagnon de lutte te ñoom dañuy xeex pour samp kàddu mag ñi ak seen jëf moom looloo ko fi bàyyi mu ngi fexe kàddu mag ñi di samp jëfu mag ñi di samp seen liggéey di samp kon ñun taalibe yi wuy si ko rek moom war moom la woote woote boobu incha allah bu ñu demee ba le quatorze septembre sëriñ Habib wax na ko jamaatul nuur danañ ñëw jox ko li nga xamante ni moom la leen déggoon ci taxawoo taxawaay mu mel ni mu mel ba tey mën naa wax ni kuy taalibe bi sikki ngaa xool gis bijou bu rafet bii di liggéey bu sotti te te sell muy jumaa yi Seydil Hadj Malick ci biir programme mu gàmmu gi lépp kon ñëpp bàyyi ko xel restitution wu caabi yooyu nag moom la sëñ Habib di def rek précision pour ñu bañ waaye dafay ñëw bu jot caabi waxtaan ak njabootam yi mu am taamu nag bés ba mu koy jullee incha allah yal na ko yàlla indi mu fekke ko te dal ko te yàlla gën a doon wér nun mbokki taalibe yëpp nun mbokki jullit yëpp nu àndandoo ci gannaawam ci bëgg-bëggam incha allah ba ca nag mooy taamu gi mu taamu joxe ñu yonent bi pour ñu seetaan ci melokaanam xam na ni biñ di mu jot loolaa lay jaar yonent bi mooy le meilleur exemple en tout ci mu ngi doore ci topp ndigal topp jàngale topp falsafa liggéey teg ko ci li mu tegtalee liggéey itte bu kawee bi mu ko daan defee nga xam ci la woo awliya yi ci la woo mu bokkaloon mu di ay saxaabi yu ñun ñëpp nu demaat xoolaat sunu réew ci doxin bi sunu réew ci jëfin bi sunu réew ci lépp loo xamante ni dana ko may koom gën a yaatu waaye daal daal gën a la mu waxoon innama al umamu bil axlaaqi ma baqiya fa in zahabat axlaaquhum zahabu dene mbooleen pénc yi seenu jag-jag baax la def seen grandeur yi def seen développement yu sell ya mooy seen melo yu rafet ya su fa melowu rafet amatu pénc day perte valeur pénc day tànn lépp loo xamante ni moo def màggaayam suñu réew nekk ci jamono boo xamante ni laaj nañu delloosiwaat sago yi tegtal leen jëmm joo xamante ni ba mu dalee di am ci humanité yiw rek la jox humanité loolu la xalifa bi bëgg pour taalibe yi delluwaat xam ni nu ngi doxal doxalin boo xamante ni suñ jéggee boo moytuwul suñu penc ci ñaaw boo moytuwul suñu penc ci damm boo moytuwul suñu penc ci yàqu mm-hmm. mu bëgg ñu delluwaat ci melokaan yooya jéexal ca luñ ca war a te taamu wane ko ci melokaan wi mu ko wane ñaan yàlla ci barkeem ci barkeem buy juróom ya barkeem maamam yàlla na yàlla yeggale ci gaaw sëriñ baa ngi woo ku ak ku mën ña mën ñëw teew ñi mënul yéene seen yéene bokk ca tabaarakallahu tàmbalee ko Habib waxee borom réew ak li mu ëmb ci ay gouvernement ak ministre yi ko seq chef de service yi nga xamante ni ñooy jàppalante ak insha allah ñoom it mu ngi leen ci woo ci boobu taxawee ba ca topp nag te mu bokk ci li nga xamante ni ñun ñëpp war nañ koo xel mooy ñëw gi nuy ak jamono bi ñu ak li mu laaj xalifa bi ci teewaayu bay cheikh dal na sàkku ci nit ñi ñuy ñëw ànd ak dal ñëw ànd ak jàmm te sell te xalaat te yéene waaye sell tey def def te mooy laa laabal suñuy bopp ndax li ñuy wut si ak fi ñu si loolu la laaj na woote itam ni ko sëriñ Habib confirmé ci njóbbante bi mu jox mooy chauffeur yi transporteur yi ak mbooleem ñiy ñëw moo xam tàmbalee ko ci bicycle mu yor ñaari roues ba R4 roue ba ci jëmmi bus wala car wala daaba bu waay di war xalifa bi ñaan na nu yéwénal waree bi te bu ñuy ñëw nag mu àndal lu mu war a àndal ci dal ak tey ndax kat li nu bëgg mooy gàmmu zéro accident ni ki ñu ko ñaane woon ci màggal bi màggal zéro accident waaye yàlla na nu yàlla may gàmmu gi nu jëm gàmmu zéro accident loolu nag ku ci ne laaj na sa taxawaay ak sa yéene sa ñaan sa itti ba nga xamante ni dal ci tey delluwaat ci tey ak jàmm dellu ci jàmm ànd ak jàmm ci yoon ba yeggat ci suñuy kër fekk fa jàmm yàlla na nu ko yàlla boole defal mu ngi baalu àq ci xaw ngeen guddal ci waaye yaakaar naa ne liggéey ni ko koskaas sirte woon ak préfet ak gouverneur ci Tivaouane ak Thiès ba ñu àndandoo incha allah ñu ngi jëm ci war a daje au niveau national ñu ngi dellu nun njaboot nun mbokki taalibe yi ñu ngi wax sunu euh, sunu ngëm-ngëm jëm ci ay yéeneem ne ko nu ngi ci gànnaawam di déglu ndigalam di fexe li mu bëgg ñu defal ko ko ba keroog yàlla may ko ca ndam nu duggaale ci ndam di daal mooy li mënul woon a ñàkk ñu wax ko ñu ngi jéggal bu baax a baax ci kàddu yi ñuy rotal ci sa teewaay muy gudd wala mu di la tiim waaye nga xam ne liggéey bii yéen a ci joxe ndigal ñu di ko doxal ànd ko ay gor ak i borom yi taxawaay muy mbokk yi séq ci Coskas ci cellule ci jamaatun noonu ca eh, beneen dayir bu mu mën a doon ci jawadir yi ñu àndandoo ci rek wan la ni ñu ngi tënku ci seen gannaaw tey xaar seeni ndigal te ñaan yàlla yàlla na ci yàlla ko di jàppale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu loolu ci eh, wolof tuuti di nuyu suñu bokk journaliste yi nga xam ne ñoo ñoo teew ci euh, woote bii di woote yàlla di woote euh, Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu di woote ki nga xamante ni moo ko fi euh, teewal di mottali mission bi nga xamante ni moo tegu ci kaw muy alxalifa Sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla dolli ko dolli ko euh, jàmm mottali ko ay yéene ba ci mébétam ci kanamu njabootu ci alxaji Maalik radiyallaahu anhu yëpp euh, di ca euh, tudd ñaar ñu yóbbaale ci des ñëpp mu di suñu bàyyi alxaji Maalik ne yàlla dëgëral ko te sàmm ko dolli ko wér di ci tudd suñu Aziz yàlla moom it doon ko wér doon di ko sutura doon di euh, bàyyi leen ci sunu kanam mu yàgg ko gunge di ca teg suñu bàyyi teg yi euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si bi nga ni moo ko fi teewal mu yóbbaale yu tedd yi nga xamante ni ñoom la seqal Cheikh El Hadj di nuyu sëñ Habib Mansour ak Moustapha Sy Al Amine ak njabootu Cheikh El Hadji Malick yi fi teew yëpp ñu ngi ciy tuddoo Serigne euh, euh, maam Omar Ndiaye Serigne euh, Moulay Diop Serigne Hassan Sy waaye ci beral nuyoo ki nga xamante ni moo mu dalal tey mu ngi Haj Demba Diop si sama patron laa koy wóor ndax mu may jox ay instruction ci ñu ñuy doxale gàmmu waaye di di nuyu it suñu di ko jox wàccuwaayam Serigne Moustapha Sy ibnul Khalifa tabarakallah dëgg yàlla eh, lii nuy def yëpp nag moom moom ko sant <laughs> ndax mooy eh, mooy nijaay bi di wéyjur bi tabarakallah ngir leen mu bokk ak ñun li mu doon ci ñun allah ci Abdoulaye Cheikh ba euh, tey Kabara Cheikh tabarakallah macha allah euh, li ñu def yëpp moo ko moom ah di nuyu ma Ousmane Samb sama président euh, di nuyu bokki Koskas yi fi teew yëpp ak bokki service yi nga xamante ci seen loxo lañu tegoon liggéey di ci jaajëfal tudd ci euh, Soxna Sow si tudd ci Diakouna Cissé tudd ci As Niang macha allah ak ñi bokk yu teg yi mu ko àndal ñëpp la bàyyiwuñu kenn Abdoul Aziz Lo euh, Abdou Mané euh, Seydou Nour macha allah ñoom ñëpp tabarakallah ñu ngi liggéey Bachir pour lim Dioum. ñoom ñëpp tabarakallah nga leen waral ci seen kër maam ak ci bis bii def nañu rek a war macha allah ñu euh, ni ñu ko waxee euh, tënk programme bi nga xamante ni euh, tudd nañu ko léegi duñ ci dellu si waat ndax yéen a ngi yor dossier de presse bi waaye ñu fàttali rek disposition yi nga xamante ni war nañ ko taxawal jëmale ci couverture gàmmu bi nga xam ni ñun dañuy jàpp ni. ñoo yéen ñoo ko seet ay partenaire lañu ci bu rafetee rek euh, yàlla ak suñu partenariat ak suñu collaboration lay euh, rafetee kon nag dañu xam poids bu ngeen ci am moo tax ñu woote woote bi ndax daan naa dégg suñu wëy jëwu tedd wa sëñ Mansour borom daal bi dana yàlla yokk ko leer na wax ni nee na ñett bu rajo ya nangoo nee na làmp reer ya doy nee na gàmmu ko neex waaw waaw jax na de waaw ah, te yu yu nangu mooy jigéen di liggéey ànd koog ñun macha allah euh, daaima mu doore woon ca ba nga xamante ni Sénégal benn média rek ak yàlla mu di RTS waaye léegi média yaatu na euh, tabarakallahu euh, ngeen di ñëw di ñu fekk si xam ni ñoo leen génne kooku responsabilité loolu ñu ngi leen ci di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla di sant borom média yi yabal seen i ndaw fii. ak ndaw nga xam ne ni ñoom dañu fi leen ñaanal seen organe yooyu lépp luñ ca yéene ci yëkkati bu yàlla leen ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di ca beral nag ñaar ñoo ni ñoom ñoo moom gàmmu gi mu di asfiya yi ak malikiya tabarakallah ñoom considéré ma sax ay médias yi ñoo fekk si ñoom ñooy cellule communication tabarakallah ñu beral loxo xaaji maam Momar Ndiaye ak xaaji euh, Maxtar Ndiaye ci seen taxawaay ci suñu wet waaye beral loxo yi euh, Pape Ali Niang ko bu baax moom ak euh, Alaaji Ndiaye ndax dem nañ seeti leen ñu teeru ñu teeru bu am solo nañu waxante ñoom ñëpp ñu jël ci naka noonu lañ ko defee ak CNW euh, euh, def ko ak euh, APS macha allah seen directeur général yoo directeur général Thierno Ousmane Sy tabarakallah bokk ci cellule Zawiya Tijaniya laata yàlla di ko dénk responsabilité bu nga léegi mu recevoir ñu waxtaan ñu jël ci ay engagement ak médias yi tey ñëpp wax dëgg yàlla Soleil ak TFM ak e, e, ITV 7TV e, ku ci nekk ci ñoom jël bis bi def ko muy sa bisu bopp tabaarakallaahu ci jot a amal ñoom ci ay échange ñu ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral leen te sàmmal leen seeni organe ba lépp lu ñu ci yéene dëgër ko ci mënul rek dellu si ci information yi leen jox ci wàllu liggéey bi moo di wàllu hébergement bi wax nañu ko ni ren def nañu ay effort ngir fexe ba dëkkuwaay yi gën a yaatu moom ñetti sites yoo xamante ni jot nañu ko retenir ngir mën fa dalal ay journalistes ndax fii ñu ñu joxoon ci euh, résidence El Hadj Mansour doyatul woon ci média yi nga xamante ni ñooy ñëw di wàll wàll si ci gàmmu bi euh, tabaarakallah ndax booy recevoir lu xaw yegg six cent ba sept cent journalistes accrédités euh, doo mën a yem ci ñaar fukki néeg moo tax ñu wut yeneen site euh, di sant nag kilifa dëkk bi dalee ko ci conseil départemental ak mairie bi tabaarakallahu nga xam ni taxawoon nañ ñu ba yokkal ñu ay bërëb yoo xam ne daañu fa mën a dalal journaliste tabarakallah ànd ko nag ak euh, partenaire Sonatel bi nga xamante ni moo ñuy jox espace presse yi nga xamante ni ci la ngeen di mën di liggéey euh, tabarakallah yooyu yëpp daal ñu jël disposition yi teewaat ak ñoom ba nga xamante ni fu nit mën a nekk doon journaliste da nga mën a def seen liggéey na mu waree euh, tabarakallah ñu wax leen aussi ne accréditation yi euh, daañu ko door ci fan yu néew mën ngeen dem sax dès à présent ci site euh, cellule Zawiya Tijaniya www point zawiya point euh, ci rubrique bi nga xamante ni moom la ñu consacré affaire accréditation ngay jël fa li nga xamante ni mooy remplir fa fiche d' yi su ko defee. daañu mën a permettre ba xam ni ñoo mën nañ def prévision yi war ba nga xamante ni la leen la ca war ci ñoom ko mën a mottale kon nag ñu woo ngeen def ko ndax euh, ci nu ñu organisé euh, képp ku bëgg a accéder ci tamafoor yi ak ci bërëb yi nga xamante ne fa liggéey yu di am euh, dana jaadu nga accrédité sinon comité d' ak cellule communication daañu am jafe-jafe ci mën la Euh, jàllale kon nag ngeen def liggéey boobu rek ngir jàppaleenu ko dem accrédité wu du yàq dara te leen jëlal temps dana permettre liggéey bi gën a jaar bu dee ci wàllu couverture wax nañu ko moo di am na disposition yoo xamante jël nañu ko euh, ci euh, bërëb yi nga xamante ni mooy bërëb yu tey liggéey yi di amee ak waxtaan yi jëm ci dawaay wax ni xam-xam yi ci am tax na ba li ñu gis ci at yi passé moo di euh, jafe-jafe daan na am ci mise en place yi euh, ren nag disposition yi ñu jël moo di daañu fexe ba am na yenn ci télévision partenaires yoo xam leen permettre ñu nekk ci espace yooyu waaye ñu fexe ba assuré wu ni am ay lien neutre yoo xamante ni ku ko soxla di ko mën a jël euh, pour ay diffusion loolu daf ñuy yomb na liggéey bi te lu yàq dara ci yéen li nga xamante ni moo ngeen war a def ci euh, doon ay relais ci information yi loolu ci woo seen euh, ànd ak ñun ngir xam ni rek condition bu liggéey bi moo ko laaj ñu war fexe ba tabarakallahu Euh, ku nekk jàppale sa morom rek ba liggéey yi jaar yoon mu war a jaar macha allah mu mel ni dootu ñu accepté riche yi di nekk ci biir euh, jumaa yi euh, la ñu ci jàpp moo di bépp riche bu dee daw Sëriñ Babacar riche yi dañu leen di ñaan ñu nekk au premier étage ñu accepté benn riche boo xam te dafay nekk ci. Euh, sous-sol bi ndax sous-sol bi dañu ko bëgg a nga xamante ni dañuy def kilomètres yi kilomètres ngir ñëw fekkee ci euh, li nga xamante ni mooy gàmmu bi te bu xatee ni mu daan xate dana am ñoo xamante ne xëy na duñ yëg ci biir euh, jumaa yi kazalika noonu dañu ko jàppe aussi ci zawiya Cheikh Hadji Malick ñu may ñu daal di jël yenn yi nga xamante ni euh, cellule bi dana ko mettre ci disposition médias yi ngir mën a yaatal bërëb yi nga xamante ni fa la loolu di amee euh, loolu mooy ndénkaan yi nga xamante ni bëggoon nañu koo indi euh, dégtal leen ko di leen sant yi ñëpp ci seen teewaay di ñaan yàlla yàlla defal lu tawfeex sëriñ bi nga ngeen ñaan ko ba le sëriñ Abdoul Aziz Amin daan wax ñu am gàmmu bu naay yàlla ñu ko yàlla bàyyi. amiin <laughs> ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi di ziar ñëpp di jéggalu suñu guddal wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. déedéet sax ñu may ñu rek dimbale ñu rek deux secondes dafa am lu ma bëgg a dolli dafa am benn dafa am ñaari point yu ñu fàtte woon di ko dabaatal mooy xalifa bi dafa insister ci ñaari point bu njëkk bi mooy dañoo seetlu jamono yi paase ci gàmmu yi paase ay xeetu carte yoo xam ni dañ ko fi def ci dëkk bi di ko def ba ci taatu fi ñuy gàmmoo ak mbooleem façon carte bu mu mën a doon ñu ngi koy interdit ci biir dëkk bi yépp képp koo xam ni daje nañu ak yow nga di ko def walla ñi nga xam ni yónni nañ leen pour ñu di ko saytu su boobaa yoon dina dal ci sa kaw ñuy ñaan nag ndax ñi gàmmu si ak ñiiraas raas démb dañoo bokk dëkk boo dem fekk fa am na ñoo xam ne yàllaa leen yëkkati waaye am na ñoo xam ne yeneen i caaxaan moo leen yëkkati ak yeneen i boobu sëriñ bi ngi ñaan képp koo xam ni loolu moo la yëkkati na xam ni bépp taxawaay bu mu laaj jël nañ ko ña ngi taxaw beneen point bi moo di bépp xeetu musique wala lu jëm ci wàllu caaxaan képp ko def ci dëkk ci guddi gàmm bi wala la ko jege danañu jëflante ak yow te danañu nangu sa matériel du ñu permettre kenn mu ñu yàqal suñu guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bàyyi xel ñi nga xam ne dañuy jaay xeetu marchandise yu bon yu périmé yi ak yi nga xam ni dund la te ñu koy dugal ci biir te baaxul ñu di nga ngeen yëg ni jox nañu autorité service du jeune ak ñi nga xam ne ñoo yor service yooyu renforcer nañ leen ci ay nit pour ñu saytu loolu képp koo xam ne fekk nañ ci yow loo xam ni jaadu ci bés bi wala lu ko jege dinañu jëflante yow pour ngeen pour ngeen bàyyi xel loolu ñi ngi ñaan nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di raas démb te sant Diop ak Ndiaye ak ki ak ki Ndaw ngeen dimbali yéen ñi nga xam ne nag sant leen ndaw sant leen sàll sant leen Diop sant leen Ndiaye yéen taxu leen may kon nag ñu ngi ñaan képp koo xam ni loolu la yëkkati nag ñu dimbale bi ci topp nag mooy maa ngi ñaan bokk yi julli passé yëkkati leen taabal ñu julli ci baar sëriñ bi ñaan ko ak dogal ami zañ zañ ci diine te yënguwul ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn dëkkaaliwul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. Khalifa man bay na samawaat ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. Khalifa man bay na al arde. ki mu doon kooku mooy Ababacar doon du Maodo doon di Cheikh soga dem kooku mooy Ababacar ka ca barzaq tey jëflante ba tey kooku mooy Ababacar ka ca barzaq dàq tey jëflante ba tey mbokk mooy Ababacar ka cabar dàq tey jëflante ba tey mbokk mooy Ababacar yor cër ak ci dogal ami zenzen ci diine te yënguwul mbokk mooy Ababacar ana soppey sëñ Babacar yi bu nu sàggan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Mansoor bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Abdo bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Habib si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Mansour bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Cheikh Tidiane bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Abdo bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Baye Mansour yi bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. ana soppey Serigne Maodo si. bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. ana soppey Serigne Mbaye Abdou. bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. ngale yéen mbokki taalibe Cheikh yi. bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. ngale yéen mbokki taalibe Cheikh. bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. ana ñi bëgg Serigne Babacar si. bu nu sàggan ci Babacar Mbaye. mbay ku ci sàggan ñu dem bala. mbay ku ci sàggan ñu dem bala. mbay ku ci sàggan ñu. dem bala ambay ku ne sàggal li yonent bi ku ne sàggal li yonent bi ku ne du ñëw li yonent bi ku ne sàggal li yonent bi ku ne du ñëw ambay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiitu newul fi nun mbay la ko jiital newul fi nun mbay dafa ànd ak mayam yu doy mbay si bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàqee ma jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wallu noo mbay ba ko woowee mu wiisi jàlle noon bay bu nu tiitee ba ko woowee mu wuy si baytul wilaayati mbay dafa jëmbam ci diine gi mbay moo rangoo xilaafa gi mbay moo rangoo xilaafa gi cheikh ni ko bàkkul ci diine gi ko mbay koo di mbay moo dal di am mbay koo gàntal ñu xañ ko ko mbay xaw soo um nga làmbi ji mbay moo ëpp làmbi ji ñu maam xalifa moo ëpp làmbi ji ñu maam xalifa moo ëpp làmbi ji ñu maam xalifa moo ëpp làmbi diine ji ate ñun nañu lëggéeyal Seydi Mbay ñun nañu lëggéeyal Seydi Mbay war na koo lëggéeyal liggéeyal Seydi Mbaye nar na koo liggéeyal Seydi Mbaye nar na koo liggéeyal Seydi Mbaye ndax booy liggéeyal Seydi Mbaye bés booy faatu da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana yi ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu ñu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala